ñu ngi jëm foo xam ne day dina xaw a lëndëm ndax man damaa yaakaar ne xanaa doono xoolaatul seen ginnaaw muy kër bërëb liggéeyukaay ab ànd mbooloo ba ci sax diggante way ñaari dencante ba ci diggante way ñaari labatante ñu ne la méritocratie mm-hmm. méritocratie moom nañu wax def deux points daal ni une ignorance sénégalaise point point d'interrogation foofu doonoo laaj ñoom suñu duggee dinañ xam. Mm-hmm. ñoom ñii suñu duggee ñoo ñuy wax loolu fan la tëdd. mais papa luy méritocratie. loo yelloo ak loo mm-hmm. yelloo wut maanaam lu la jomb ak lool jomb la da nga koo mérité. Mm-hmm. méritocratie dans méritocratie nous avons. mérite mérite. loo xam ne jomb na la ak loo xam ne jomb la. ak loo xam ne ni nga ko amee. ku ñëw danaan walaay lii xamoon nañ ko voilà la personne à la place qu'il faut Sofia moo dem gis su fekkente ne ci liggéey bërëbu liggéeyukaay la di nga gis koo xam ne dinañu ne mhm. kii ndax place bii mu toog honnêtement war na fee toog wala waru fee toog su dee diplôme la yilif na ku ko dàq jàng su fekkee poste buñ ko jox la yilif na koo xam ne moo ko ca gën a yelloo fuuf gën koo mën fuuf ñu ne waaw lan moo tax nu jox ko ko ñu ne ah soo demee mën naa doon koo xam ne nag lu mu dégg wala looy bañ kilifa gi yëg ko jant bu ko yëgee dina dugg cib noppam su duggee fii maanaam pion la ci kër gi doon pion ci kilifa gi boo xam ne fu kilifa bi waroon ne war a dëdd moo ko fa nekkal looy bañ kilifa gi dégg ko mhm. bu mu dugg ci noppam kooku doon ko teg ca place boobu pour doyee ko loola dafa am lu ko may place boobu mais mérité wu ko mm. nga gis dugg ci néegub sëy gis góor ñoo xam ne soxna sanu takk wallahi mérité wuñ ko mm. waaw ma mérité wuñ ko soxna ñu takk soxna sa day doon gune baax laa biir waaye nag ngune ga da koy yàq ndax nee nanu ñett ñii na leen ngune gi yàq muy mbërum làmb fasu naaru góor ak jabar lu mu gën a ndaw gën a baax waaye nag su ndawee tamit dina la indil problème ndax du am genn yeewu tegi ku toll ni jigéen nga téye ko nu ne alxëyri mu mel noo xam ne ci bu tàng néegoo ko teg ci loxoom ngeen dox nga ko ah ak ni nga mel yow yow looy pàccaaral nii di mel ne meer xoolal sa dënn bi ni mu kii fekk non non non sa tubéy ji soo ko solee du fees. <laughs> yëkkati ab xaalis jox ko mu dem kii nu pompe ko dégg naa am na pompe boo xam ne daf ah, lay wol. pompe la man man xaw ma loolu dama kii. pompe dem fan maanaam am na yu muy def yoo xam ne day dem ba mujj doonum ponkal. doon koy pompe am na ñu. lu muy naan la lay pompe nii nit kenn na ko pompe. lu mu koy def daal waaw lu mu koy def am na lu mu koy def loo xam ne su ko ko defee. day daal di jël forme air la comme ñu def ci pneu ay weenam daal di taxaw am na yoo xam ne su ko defee ay weenam dafay naan jàdd daal taxaw mel ni gune gu tuuti noonu léegi su ko defee nu téel a la fowe di la fowe di la fowe di la fowe maanaam da ko xemmeem di la la loolu du bëgg. xemmeem moo tax ma ne bëggeel amul. am na lu ma xemmeem ci bëgg a waxee mooy yenn saa yi nga am soxna mu am nu mu mel nekk xale bu rafet nga takk ko mu am doom ñaar wala benn commencé bàyyeeku yaramam bàyyi ku ne xam ne doom. lu muy def ci yaramu jigéen fu mu fàqee fu nekk rek. am lu fa jóg fu mu génnee rek wala fu mu fu mu fu mu fu mu la rombee rek nga xas ko ne ko xoolal ni nga mel. sa morom yëpp ngi nii taxaw yow nga nekk bàyyi sa yaram ba mel ni mooy léegi nag moom elle va ah. essayer de se rattraper ni ah. muy rattraper woo nag laa lay wax ni muy rattraper woo dina dugg ca la ne dina naan dina jël ay régime d'accord dina jël ay fortifiant dina jël lu nekk te fekk yow explication yi désordonné na trop d'accord merci léegi nu ëlbati sérieux mu nekk ci kër gi wala muy nga ba am koo séqal ngeen mat fa juróom-juróom benn waaye nga doon koo xam ne yaa ngi ci ay noppam guddeeg bëccëg di ko fen rek loo dégg daw kobas ko daal di ko koy wax mm-hmm. dina dem ba xam loo xam ne mm-hmm. su taxawee woote réunion su ko waxee doon naan laa ilaha illallah ba am na moo lii fi mu jóge fekk mi ngi jóge ci yow yow yaa ko nettali mm-hmm. day am am loolu amul ah non non da ngay sportif da ngay sportif da nga naan waaw wala ngay naan man sa tur wi moo tax dama lay warmaal am nga tudd dama lay warmaal ah Xaadim maa ngi ñëw maa ngi ñëw ci yow. Ah. maa ngi ñëw ci yow nag émission bi daa am rek ku ci nekk ak sa temps de ah, ah. parole. Xaadim man sa trouvé tax man la wormal. Mhm. mais yoo xam nga ne suñu demee ci biir da ngay daanu. Mhm. léegi su gars yi duggee nga daanu barke mhm. borom yi duggee nga daanu. loolu laa la ne am na. loolu yëkkati place boo mérité wu jox la ko. sëy ak jigéen joo xam ne leer na la leer yàlla ne kii mérito boo ko ndax yàq nga ko da nga koo xeme moom mhm. fi mu ne yaa ngi tànte ji keneen mhm. ëlbati ko am jëkkër joo xam ne tamit mérité woo ko ndax li mu lay defal fi mu lay taxawu ni mu nekkee ak yow ce que sëy mérite da caa da caa da ciy am ah, est-ce que ah, sëy mbëggeel ah, yërmande mbëggeel ci la mais bu njëkk ba déggal li ma la mbëggeel amul man pour man mii neel moo am di nga gis nit nu may ko boroom kër muy bañ di daw di dugg fu nekk nga nekk ca rek ndax miinu ko mën na la toogal rek di ci jóg nag di ci ñaanlu ba mu dem a dem ba mujj lu ko ndeyam wax wala baayam mool bët ko dem nettali ko waaw defal sa jabar ba mu bëgg la moom nga laal ko xalima wala nga sunguftu ko wala nga rentu ko mhm. ba nga xam ne seen diggante du yàqu kenn du ca man dara am xelam du nekk ci kenn mhm. ci yow lay ne te doo ko toroxal mhm. loolu dagan na dëgg la araamul de loolu araamul mais am na day am mérite day am jigéen day xool ko ko mu dugg ca moom góor dafay xool jigéen joo xam ne du mu gis ay qualité la ci moom joo xam ne kenn mënu koo jot ci këru àdduna bul takk lu kenn buggul takkal lu kenn mënta jot ci këru àdduna day am. dëgg la bu baax a baax Benoît mi ngi États-Unis di ñu seetaan. ñu ngi gi gi Sophie. Mm. Euh, mu ngi ñu ngi ci ay points yu important dañu nekk ci dëkk boo xam ne ñun ñëpp ku ci nekk boo jógee yaa ngi jéem a jàng wala ngay soo jàngul école yaa ngi jéem a jàng euh, métier. pour mën a am dara pour suturaal sa bopp suturaal sa njaboot papa wax na ko sànq. Mm-hmm. nee na am na ñoo xam ne ci entreprise yi mm-hmm. euh, da nga leen gis mais mérité wuñu place ba ñu am parce que amuñu diplôme ba. Mhm. man euh, des fois Sénégal euh, côté boobu dañ ma fay jaaxal. c'est juste une question. Euh, kan moo war a définir ne diw. mérité wul fa mu nekk parce que am na ñoo xam ne am nañ seeni i ñu teg leen ci yenn place te mënuñoo remplir tâche bi nga xam ne moom lañu fa mm-hmm. tegee am na ñoo xam ne seen xel lañu parce que day am li ngay jàng bokkal ak la ngay tari am na ñoo xam ne euh, dañu am dañu dañu dañu mën seen liggéey surtout sa dépend ci yenn liggéey yi te pourtant jànguñu mm-hmm. am ñu jàng yoo xam ne mm-hmm. euh, amaana boo leen fa tegee duñ ko mën a def mais est que ne diw mérité wul tel poste wala diw mérité wul tel nit est-ce que loolu yomb na euh, bu ñu demee ba ba di wax loolu c'est parce que effectivement dañu nekk. Mhm. ci société boo xam ne foofu la toll. mooy ne di nga gis doomu aadama mu nekk <coughs> fenn nga laaj ko waaye yow par exemple lan nga jàng wala noo def ba nekk fi déjà nit ñi sax duñu partager seeni expérience professionnel ak fu ñu nekk ak nan la ñuy aw pour def pour nga pour nga mën a dem fenn liggéey. Mhm. maanaam dañoo dem ba sax liggéey nekk loo xamante ni ñoo xam ne dañuy yaakaar ñoom rek ñoo ko war a def société bi moo tëddee noonu mhm. euh, doo wan nit ñi yoon yi mhm. ñu dem ba léegi jalousie di installé wu ci diggante doomu aadama yi mhm. euh, damay commencer par mérite sensu mérite par exemple ku mel ni ñun suñu kër bi ñuy yar dañ la tey booy di jàng école sa papa mën na jënd benn cadeau dama lay jox exemple wan la ko ba nga gis ko li nga gën a bëgg mu denc ko am na ko mën na ko jënd na ko da koy denc ne la moyen nangam laa bëgg Mm-hmm. cadeau dañu koy mérito mm-hmm. nga jàng bu yëkkati jox la ko mm-hmm. nga dem ci entreprise ñu di def marketing xam nga loolu bu la ko sa wéyjur euh, jàngalee soo màggee lépp looy def ci àdduna rek da ngay gëm ne da nga war a jaayante ba ku la gis ne laay da koo mérito pourtant phrase la bu ndaw la mais lu am importance pour yow ak pour ñeneen yi da koo mérito wu ñeneen yi sax amul sens mais da koo mérité wu individuel bi. Mhm. mooy boo wéetee yow kase. nga xalaat man de liggéey bii may def nag damaa jaayante mhm. jàng bay bëggatee mhm. jaayante ba am sama liggéey lii lii ma am de damaa rey sama bopp ba am ko c'est très très important pour yow sa estime personnelle ak sa avancement ak vision wu àdduna ndax lépp loo xam ne danga koo am te mérito wu ko danga koy ñàkkaat dinaa ci ñëw euh, ki la teg ci place moo xam dala faa teg amoo diplôme dala fa teg par yërmande dala fa teg parce que dafa am fi ngeen jaar bés bu fa nekkatul njiit bi nga jóge fa wala bés bu doyalee ci yow la mu doon am ci yow amatu fa nga jóge fa hmm. mais la nga xam ne da nga koo mérito tey ba hmm. tegu fa hmm. am fa say contrat xam say droit ak yeneen ak yeneen am na sax yoo xam ni bés boo ko ñàkkee soit tu auras mieux wala di nga mën a toppaliku nii mais lenn moom am na li fi ëpp fii ci société bi tey te ñu koy waxtaanee mooy ne bëri na ñoo xamante ni da ngay dem ci entreprise fekk leen fa bu ñoom ñoo lay nettali nañu def ba am accès ci entreprise bi yow di ko jomma def pour toog fa ñu toog mm-hmm.